en fait njublang bi nga xamante ne moo fi yàggati nekk loolu moo tax ñu naan leen opposant milliardaire te ils du mal à pouvoir justifier aujourd'hui xataraayu bi yëpp mooy ni protection bi nekkoon ci ministre te loolu laa gëm il n'est pas normal qu'un ministre yor benn ministère directeur de cabinet ba ak ña nekk ca cabinet ba ñooñu di payer les erreurs du ministre parce que ministre mu ngi sous protection boo xamante ne moom ak dage yi ngeneen ñi ci topp dadul yoon ne serait ko pour loolu moo tax ma ne la Bassirou Diomaye Ngone bu réussir à corriger ces injustices là mm. et puis teg lépp ci yoon jub gi mu mën a doon réellement une ré parce que il faut nga ragal a def yenn yi pour nga mën ko def sinon mm. boo ragalu def dara da def lu la neex mm-hmm. ñu génn ci yii yëpp Pape Ousmane réew mi dina tane bu bëggee beneen mandat ñu jox ko yaa ngi xaar ñu tontu ah tontu laa leen xamee woon man duñ tontu déedéet man dama leen xamee woon tontu ñëpp sénégalais ñëpp xamoon nañ ne am nañu fulla ak fayda goo xam ne saa boo waxee ci ñoom bu ñu ci heure yi ci topp dañuy génn tontu. waaye bale passé bi nga xamee ne le premier ministre moo wax ñeneen ñoo tontu woon waaye ñu tontu woon dafa am leneen lu leen ci fekkoon ca lañu gëjee sax tontu nag. namm naa leen nag. bul namm kenn euh, dafa xam nga tey euh, Ousmane Sonko dafa am lu mu wax ne ñoom ci seen bopp li ñu bëgg mooy wax askanu Sénégal dëgg parce que président Bassirou Diomaye Faye bëggul gouverner ci ay fen. kon jàpp nañ ne man bu ñu waxee loolu man li ma jàpp mooy ñi fi nekkoon di gouverner waxuñu ñu woon dëgg ku mën a mag yi ay chiffres jéem a jël ay milliards mu ñëw ci ci état bu Sénégal te amul traçabilité kooku kooku damay jàpp ne yow sàcc nga. Mm. léegi koo xam ne da ngay fen da ngay sàcc yërëmoo sa askan nga bëgg ñëwaat ne da ngay laaj député loolu sénégalais ñoo ko di yéen seen bopp waaye Pape Ousmane tey. Mm. bu ki nga xamee ne di nga Assane Mbengue bu Dakar dem dikk. jàmbaar la di nga ñoom ñëpp ku ci moytu di nga teel a bijaaw ndax lan. non li mu fekk yow yow yow état des bi mu def li ñu fekk tey Dakar dem dikk boo dëgguwul dëgg dëgg nekk góor xam ne yow mii tey jii dafa am lu la war da ngay daw bàyyi ko fa. am na ci yenn ministère yoo xam ne bu ñu demee ba xool ministère yi leen jox boo dëgguwul yow da naan lii man mënuma ko relever da ngay obligé dem il faut nga gëm yàlla dëgg yàlla jàppale la nga mën a toog. defaraat situation bi. te fépp noonu la mel. amul benn bu génn. du loo buñ ne ah kii de ki fi newoon jàmbaar la. dëgg waaye yow xanaa li Ousmane Sonko wax da nga koo déggul kër bu mu toogee primature jàkkaarloog askanu Sénégal. Hmm. ministre de la justice toog ci wetam. secrétaire du gouvernement toog ci wetam. ministre des finances toog ci wetam. mu wax ba pare ne ministère bu ci nekk dinga génn wax. waaw démb El Malick wax na mais attends-toi que keneen ak keneen dinañu wax te ku wax nga taf sa gémmiñ Papa lii man eh, bu ñu la waxee Doudou Ka daw na du la bett. bu ñu la waxee keneen ak keneen daw na du la bett bu la nee keneen toog na bu guddi aw ci yoon suuf bi di jéem a dem ñun dëpp ko du la bett parce que li ñu jël ci à xaalis senegal mu loolu moo bari déglul. yow ministre bi nga ne non non je vais acheter valeur bu 23 milliards déglu leen baax may te 8 milliards nga ne da koy def secret défense. ñu ba fexe ba li jënd seen cachet secret défense ne ko ci jël joxe ay marché fictif avance gars yi plus de presque li mu mat deux ans ku ci ko waroon na livrer entre trois et six mois am na si ñaar ñoo xam ne bën a livré bu ñu ko te jox nañ leen lu mat sept milliards marché fictif la. léegi franchement nii da ngeen bëgg yéen sénégalais ñoom dañoo dañoo dañoo dof xam nga ñi ñoroon réew mi mbaam sax moo leen gën ci dëkk ndax mbaam boo ko defee sa tool. dina la mën a ànd ak moom muy am lu muy def ci suuf si kon kooku am na njëriñ mais ñii lan lañu deful askanu Sénégal kii nii wax kan nga gis mu génn tontu bu doon jamono dañuy nekk ci dëkk bi dëgg dëgg dëgg xoolal di nga gis bu ñu xëyee tey woote si am nañ fu ñu tontoo presse bi saa boo leen oowee ñu ñëw na ñu jiite woon AIBD est-ce que tey ñu mën a génn wax ana jamono jooju ministre bi nga xam ne moom mooy yoroon transport est-ce que tey amul responsabilité génn tontu may ma ma ne est-ce que tey waa xaaral rek xaaral su ma paree nga ma baal ma balaa may juum dama la ko ñaan hmm. kooku tey warul génn daal na kat ah ministre bii kat dañ ko dénk tey li ñu ma dénkoon muy transport terrestre wax na ba wax ay marché fictif wax na ci ay secret défense hmm. yéen sénégalais damaa bëgg ngeen déglu ma lii ak lii moo am est-ce loolu xaar ñu ko ci ñoom est-ce que dañuy xaar rek justice di autosaisir wala procureur di autosaisir wala ñu dañuy xaar parquet financier yow dañu la dénkoon tey waxoo toog nga setal sa bopp ci kanamu askanu Sénégal sa kanamu njaboot sa kanamu doom ñi jiite woon AIBD muy Doudou Kam yi ñu ne la dafa aw fii jël ci raam bi daw. te du moom rek. kooku warul génn ne leen kat El li mu wax kat lii ak lii moo ci am bu dul dëgg nga ne ko dëgg waaye kenn tontuwul amul kenn ku taxaw ne ko chiffre yi nga wax du dëgg. xëy na dañ cee tuddaguñ kenn nga ne tuddaguñ leen. Pape. am gestion la ñu wax tudduñu leen. waaw ma gestion. machine li tubaab naan ki ki si sans morve xaw ma sa mouche waaw. loolu xëy na loolu la ñuy. waaw déglu ma ma ma ma man la laaj. ma tontu ko. voilà. mayam rek jëlal. bu la ne woon ki doon présenté émission café ci démb moo def nangam nangam doo xaar ko ne Pa Ousmane. ah fii de dégguma démb ja. waaw <laughs> ne doon présenté rek. waaw waaw nag. d'accord bu ne démb ma xam ne man la. <laughs> waaw déglu ma. waaw bu ne kii présenté café ak ci maa nga ca yaa nga ca biir. ak Nabou Cor. pare nga ah? par exemple waaw dama ne kenn ci ñoom man maa la wax waxuma elma bi kenn ci ñoom du génn tontu parce que amuñu argument pour tontu kii li mu wax nii hmm. nekk lu mu tâtonné nekk lu muy lire nekk lu mu toog di ko xool de gauche à droite dafa def état des lieux mesure de conséquence loom fa fekk xam ne ñii li lañu fi jël ci alal yow pousse pour secret defence kon yow 45 millions milliards d'armement yi kon yow loo ko def kon yow ceeb ak dëwlin bi nekkoon ci Covid 19. nga naan soo ma ko laajaatee ma porté la kon yow loolu lan nga ko def. Ah. yow ay yii da ngeen fo ji nga léegi nit ñi dañoo dem ba xale yi danga daan fowee ay 1000 francs léegi xale du ñaanti 1000 francs 10 000 la ñaan xam lu tax. ñu daan fowee ay millions ay milliards la yu njëkk yi dañ daan détourné ay millions millions millions. mais ba ñu commencé def ay état des lieux ba léegi boo déggul 8 milliards jëm kaw muy douane muy euh, euh, euh, muy muy muy fële Dakar dem dikk. muy muy muy feneen ak feneen ministre bu génn wax sans compter ñi waxagul. Hmm. nopp dal gémmiñ loxo dal gémmiñ léegi avec saa ñoom ki fi nekkoon mooy Macky Sall mi nga xam dañ koy jiiñ di ko laagaat na ko ay sa laaje woon. Hmm. suñuy doom lan moo tax nga rey leen. suñuy lan moo tax nga rey leen 45 milliards d'armement yi nga def anamu question boobu na ko ñëpp di ko bind di ko ko laaj moom saa bu weewoo lan moo tax Macky Sall amul fit doxantu fa trans France doxantu ci ci Champs-Élysées yi dem saafante ak ña fa nekk la moo tax Macky Sall du doxantu biir Maroc nga gis ko muy doxantu la moo tax dem États-Unis doxantu fa léegi mu day ñëw Dakar. waaw il ñu ngi koy xaar léegi Macky Sall moom ñu ne ñamu jiite woon parce que moom ku ci nekk moo la defal ndombo tànk ñi nekk nekk nekk ministre de gis nga tey ñii bu ñu fa jógee dañ naan la moo tax Ousmane Sonko ak Diomaye Faye faloon ñii ñu def fi lii wala ñu def fi lu baax wala ñu def fi lu bon dañ ko dañ leen koy laaj tey bu ñu defoon ñun fët fii ci émission wala ñu wax fi li ñu fa wax daan dina am ci ñoom waaye yow mi gère émission bi doo ci génn. parce que da fa am responsabilité boo xam ne loolu yow la engagé. bu organe defee benn mbir. directeur de publication ba. Mm. naam journaliste bi dana am la ko waaye directeur de publication ba ak ka moom télé ba rajo ba. Mm. koo koy dem ca tribunal bi ñu àtte ko. kon président Macky Sall mi fi nekkoon. mënuñoo àtte ñii bàyyi ko moom mu ne cundum. Mm. président Macky Sall ma ne bu amoon jom. ne moom euh, buur la ci ay maamam wala gor la ci ay maamam du am fit toog di jël turam boobu di ko def ci tête de liste député di wax ak askanu senegal am na léegi nag la muy wax. du ñu ñoo ko ne boo ñëwee campagne lii ngay wax. Mm. li ñu koy laaj nag moom mën na am ñu gis ko mun na am ñu bañ ko gis. Mm. waaye laaj boobu Aïssa Camara laaj ko. bu fekkee kenn gisu Macky Sall ña topp ci moom te ànd ak moom di ko defal euh, campagne. nañu leen ko laaj ñoom léegi fileeg boobu euh, Fary. recours yi dégg nañ boo xamante ne dugal nañ ko pour Barthélemy Diaz pour yow c'est justifié ah moom nga jàkkaarloo waaye ñuy wax ni waa Pastef ñoo nekk ci ginnaaw am na journaux yu ko wax gis nañu it euh, euh, dëggantaan ki nga xamante ne moom moo dugal recours du ñàkk xëy na Babacar jox ñu ko ci illustration yi euh, waaw yooyu yëpp noo koy noo koy seen xam nga candidat candidature je pense que waxtaanee woon nañ ko fi yàggul dara te biñ ciy wax tamit je pense que